bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu mu jotaatee ndigal ci sëriñam di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Salihu yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér sëriñ Cheikh Amar directeur général bu TSE nee na mi ngi santaat yàlla bu baax a baax di santaat sëriñ Touba Xaadim Rasul di feddliwaat ak njëbbalam ci sëriñ Salihu di ko jaaral ci loxoy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mu sëriñ Salihu sëriñ Cheikh Amar wax na ne jotaat na ndigal ci sëriñam di wayjuram di sëriñ Cheikh Salihu ngir liggéeyub tooli xel koom ku ne xam ne na xel koom su masaa noppi sëriñ bi dana woo Cheikh Amar jox ko ci ndigal mu nekk jëwriñ ji jiitu ca liggéey ba nangu caa sonn lool te di ci def alalam di ci woo ay xaritam Cheikh nag nee na jotaan na ndigal ci sëriñ bi ginnaaw bu mu ko jotee mu war a dem samedi le 14 octobre incha allahu rabbi nee na mi ngi woo képp koo xam ne ab xaritam nga. wala ngay wëllëreem wala ngay soppeem waaye jiital ci nag ay bokkam di naari darman ko yëpp la ko tàmbulee jéemul gàddiyel njaarne bàyyiwul benn dëkk waaye nag waa njaareem fàttewu leen waa ndar ga nga xam ne fa la kër ndeyam nekk fàttewu leen di woo nag képp koo xamante ne bi rek yaa ngi Tuuba ak li ko war gépp di woo nag ñi nga xam ne seen loxo jaaroon na téye sa nee na mi ngi ñaan képp koo xamante ne bi fekk nga ko ci liggéey boobu lépp lu ko sëriñ Saaliwu tibbal yàlla na ko bokk ak yow Cheikh daal nee na amul benn bis bu muy woote amul lenn lu muy dajale lu weesu rek xel koom la koy dajaleel nee na nag jekk na bu yàgg toogaat di dégluwaat ndigal li di ko sëriñ bi joxee na ñëw teew si liggéey ba di sant mbooleem kilifa ya nga xam ne ñu ngay dem xel koom te mosuñu koo manqué di ñaan képp koo xam ne teew nga fa yal na faj sa aajo ci darajey sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul barkeb sëriñ Saalihu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa